trois semaines Sénégal maag sama jabar bu ndaw bi ma fay te bu ma demee xam naam am na euh, il faut mu utal ko benn benn ñaareel ñaareel patriote xale bu baax mu may fay xaar sama jabar bu ma déggee dina deewati nee naa ko bul seetaan samay live ku la woo di wax samay live bu ko déglu parce que man maa Mister Shake waaw sama live moom sama jabar dama ne ko bul seetaan sama live parce que sama live si laay wax damay takk ñaareel patriote te ñi la bañ mën nañ la woo di la wax Mister Sheikh nee na day ut ñaareel patriote comme yow des fois da ngay votal Macky Sall sama jabar <laughs> dina ma ray de sama soxna ki ah c'est ma femme nak c'est ma vie ah waaye il faut que ma utal ko gars yi wax leen waxuma dëgg war ko utal patriote ñaareel patriote ah yow ma la votal Sonko ci municipal yi soxna Diagne xale bu yaru xale bu baax xale bu rafet barke sol sama jamaa noir boobu eh Sonko dafa am ama ana jamankaan <laughs> Sonko tamit ak a bëgg lu baax Sonko xale bu ndaw la la ut ana jamanka ana jaman noir waaye man it may maa njaagu Sonko a ah, Sonko dina am ñaari yabar man man ma nekk njaagu Sonko du ma ñaar ñaari yabar gars yi nañu waxante dëgg ana jamanka yéen xool ngeen ana jaman noir la ilaha illallah Sonko du sa morom nag jéeg bu baax la yor marem la nee na Macky moo naan marem moo ne ko loo euh, euh, euh, bul bàyyi mais Macky tooñuñu marem moo ñu tooñ Marem bu doon yeen bu leen ne Marème nere toogal doo leen tok marem Faye Sall lan la wara meuna wax makki def ko te mak du ko def yeen xolaat ngeen marem Faye bu baax say marem jeeg bu baax la barke rasolaay makki na ma balde way marem Marème rek say xolaat ngeen ko dafa rafet ba pare forme bi mu yor koku bu dago wan makki Sall ginaaw nak hey hey <laughs> bu le makki defal tal senegal makki Sall tal senegal barke rasolaay dama ne Sonko mooy njaa mooy man maa njaagu Sonko Sonko dina am jamaa noir man duma am jamaa noir Sonko dina am ñaareel man du am ñaareel sama jabaat ma euh, euh, soxna Diagne non léegi léegi moom Sonko la gars dama leen di wax léegi Sonko la mais élection municipale dama ko woo ma ne ko hey xam naa ne sa yaay Macky Sall la yéen ay affaire ndedd ko baat nu mu ngeen def parce que yaa am sii la sant xam naa ne sa yaay Macky Sall la te yéen même bu dul sax affaire ne da ko bandu Ndeye sali Dieng moo yor Grand Dakar jàpp maire yëpp jënd leen billahi barka man li tax Macky Sall dàq may Ndeye Saly Dieng sax dafa jaaxal ñëpp bu leen fàttali ni municipal yi gagné fépp ba mu des Grand Dakar ak Biscuiterie dakaar yëpp Sonko da ko raatale yow askan ba mu des Grand Dakar ak ak ak Biscuiterie defe naa te Grand Dakar Ndeye Saly Dieng mais Gabriel Kane moo yàq moo yàq diilu Ndeye Saly Dieng parce que Gabriel Kane moo ne dafa woo Ndeye Saly ne ko dimbali Adji saat Ndeye Saly ne ko <laughs> dama am jëkkër dama am famille bul ma dugal ci affaire Sonko parce que dafa ragal Sonko ci la ko Macky Sall mere daal di ko dàq sama jabar ma ne ko votelal Sonko parce que dama ko xam ma ne ko hey bul ma yàpp votelal Sonko ci municipal yi mu ne ma d'accord waaye xam nga lan la def list liste départementale mu votel Macky Sall liste xaw ma municipal xaw ma am na beneen list ñaari liste la benn mu votel Sonko <laughs> benn mu votel Macky <laughs> ma ne ko nag dama lay utal ñaareel moo demee Sénégal dama ko mais fan laay jam fan laa def ba nan laay def ba dugg Sénégal instant yi Macky Sall moo ma xañ Sénégal billaay barki rasool laay le 14 mai bii laa waroon jël vacances mais est-ce que duma yokk même bu ma yokkul damay obligé dem New York mais lii lii du àq lii du àq Macky Sall dafa commencé yàq Sénégal ba ñun sax mëntuñu dugg mais man su ma duggee Sénégal damay saraxe sama bopp képp ku faral Sonko am baat boo wàccee Sénégal amul américain nga gars yi naan ma américain nga boo ñëwee kenn du laal keroog kay soof laa dugg di wax benn jigéen ni wax ne yow monsieur Cheikh dimbali ñu yow américain nga kenn du la bu may wàcc Sénégal bugguñu ku leen critiquer bugguñu ku leen wax dëgg. sen badaxal mbada sen yaata yumbe bëgguñu ku ko explo eh, exposé mais ñom liñu wara comprendre Macky Sall li wara comprendre moy man gëm naa ne Macky Sall du taal Sénégal man loolu la gëm japp yi mi japp di xokatal dañu tester rek mais man gëm naa ne bu gaay gennoon résister Macky Sall baye ñëpp Macky li tax mu japp gaay ki ne ma togal ba Macky wacc loolu la bëgg <laughs> mais est-ce que dina wacc <coughs> Sénégal ici c'est ça le problème c'est ça le problème est-ce que dina wàcc <coughs> Cheikh Bara Ndiaye dafa waat billahi wallahi taalaahi Macky Sall dina wàcc am na ay sax ma gëmmoon ne Cheikh Bara day wàcc parce que affaire bi day évoluer am na benn jour est-ce que doon le 17 17 mars ñu am victoire ma ne gëm naa ne nag Macky du wàcc non defe naa mooy ba juge Keita voilà juge Keita ba mu jëlee décision ci saa si dama ne ah fini France Olivier Sur wax dama ne akkoon li Cheikh Bara Ndiaye waxoon dëgg la mais gis nga gars lu gaaw gaaw ñu génnewaat appel bi sama xel jaxasoo est-ce que day wàcc Macky Sall c'est ça le problème attention attention parce que sénégalais yi dañoo ñàkk fayda es ce que Macky Sall dina wàcc parce que yéen yabaate yee yabaate weesu nga toog ci télé Youssou Ndour waxaat nii wii nii noonu. moo tax ma ne est-ce que Macky dina wàcc Facebook am na dix personnes yu ma war a may cinquante mille xam naa leen xam naa leen mais dix personnes yi boo leen yéexee il faut ma remplacer leen ak ñeneen waaye nag ban duma Bill Gates billaahi wallaahi taalaahi dina wàcc bu leen waat yàlla mooy joxe nguur bu leen waaj bu leen waat te parce que Sénégal dafa ñàkk fayda parce que sëriñ yi bëgguñu Sonko Macky Sall billaahi wallaahi tàllaahi bu doon Macky Sall kese makki dem na yoonam makki moo ko bind ci livre bi c'est mon dernier combat dernier euh, euh, euh, mandat Macky Sall moo dem toog ak sëriñ yi mu ne leen bàyyi naa mais sëriñ yi ñoo wóoluwul Sonko wax ji wax ji wóoluwuñu Sonko parce que bugguñu xale yi yeewu te Sonko bu ñëwee day taal xale seen adiyee day wàññeeku. wax ji yep loolu la motax ñu leen di tital di wax ay kudde safara nga jëm ak dugg na fi fi ay imam xam nga ne bu imam bu demee boko ngeen xam ne ñoom jaaxle nañ mais def leen très attention Macky Sall mën na leen nax ba tok fi wala mu jaay leen doole xoxatal leen di leen di leen yobbu ci ba parce que gaay dañoo ragal kaso te ñoo yey kaso ragal kaso billahi wallahi taala rëbës ku dof dof lu bu dugg fa <laughs> saay saay saay saay am na ku ne bàyyi li ngay wax parce que yow da ngay tiital patriote tiitalu ma patriote rëbës avant patriote yi rëbës amoon na boo gisee gars yi ragal camp sax bëgguñu fa dem te pourtant camp seen jàmm la nekk mais ku dof doflu ba ñu yóbbu la rëbës nga xam ne dafa am chef de chambre yoo xam ne dañ fa yàgg soxor nekk chef am ay lieutenant lieutenant boo ñëwee bëreet dañ lay dañ lay dañ lay tiital eh sa waay fii nga même Ngaaka Blindé ba mu demee dafa obligé négocier Ngaaka Blindé chef de chambre da ko woo ne ko yow garaawul utul ko lal parce que dafa am xaalis boo amee xaalis gars yi da nga ciy génn mais boo amul xaalis dañ lay pakate barke Rasulaay man damay toog di am ay cauchemar rëbës man rëbës man bu ma fa duggee moom xam naa ne dee naa damay xaru

si ceeb bi comme col boo ko lekkee dangay ngay da ngay seere bu ñuy dem douche day métti bu ñuy lekk day métti ñii di wocc ñii seen biir di daw xasawaay bi fa ne xetu góor amul déodorant amul dara am na ñoo xam ne dañuy duñu sax sangu parce que robinet day faa day toog tëj enfer bi am rëbës ba pare munoo nelaw parce que da ngay nelaw bu ci yegg digg kenn yuux waay am ay dof ci biir doo nelaw te am na nu muy demee ñu agressé la fa affaire góor jigéen bi ñuy wax même bu fa amul mais yow saw moroomu góor nga sës ko rek chaque jour pendant quatre ans saa waay nañ waxante dëgg gisoo jigéen gisoo dara sa moroomu góor di la sës yow tam ngay sës sa beneen moromu jigéen mais loolu mooy indi yëfu góor jigéen sëriñ yi xam loolu noppi sénégalais yi xam loolu noppi moo tax yàlla di leen mbugal lii am rëbës moo tax yàlla di leen mbëggal indil leen makki Sall da leen wan ne yéen yéen ma gën a soxor yàlla. dirigeant bi nga mérité rek la lay indi président bo xamné da fay tok di wax ak yéen melni comme ay xale Macky Sall nan la wara amé fi tok TFM di wax nan may xol heure buma neex mané damay bok te ñun ñu am constitution mom ci bopam mu ne day jël constitution bi mu changer ko pour ñu arrêter ñu verrouiller la moy verrouiller tëj kenn dootul am ñaari mandat mom mu jël suñu constitution mu tek ko fële mu toog ak yéen mu toog ak yéen ci télé yu suñu am fit di leen wax ne moom mooy xool heure bu ko neex mu wax na day bokk wala du bokk loolu bu doon yeneen dëkk gars yi dañuy génn ñu manifester man waxuma man du ma comme Mollah Morgun pono essence taal déedéet la force par le nombre bu ñëpp génnoon comme Mali Mali nekkuñu soon di taal dañoo génn rek wane seen doole. Macky Sall dellu ginnaaw parce que Macky xale la jabar ju baax la yor ay doom yu ndaw la yor yor na ay milliards am na kër Mermoz bëgg am na kër Dubaay. li mu bëgg mooy dund te askan munoo xeex ak moom dund yàgg-yàgg Macky Sall bu fi toogee ba deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq deux mille vingt six deux mille vingt sept ba deux mille yàlla xam benn jour day ñëw ñu dóor ko bal mu dee moo la ko gën a xam dictateur xolo yaay jàmme dafa rëcc mais ana mu tey li muy dund du dund yaay jàmme li muy dund du dund ah nekk ci dëkk jàmbur ñoo naan la fii ngay toog la ngay toog bu am boo génnee da ngay tiit sa jabar bàyyi la c'est pas une vie Macky Sall buggul loolu mais li tax nag ma ne ah Ousmane Sonko toog teg teg kaaral mais dina tontu mais bu tontoo lan lay wax Ousmane Sonko bu tontoo lan lay wax li mu war a tontu du ko def les pala yow askan bi ban njëriñ lañ fi am à part élection législative bi ban njëriñ amuñu fi benn njëriñ parce que ku nekk da nga am ambition Khalifa Sall. ku ko bàyyi mu ne day jéem a nekk président fooy jaar ba nekk président gis nga nit da ngay da ngay da woyof bu leen mel ni Idrissa Seck bu leen mel ni ne Mollah Morgan mégalomane Sénégal dafa bëri ay mégalomane dafa bëri ay narcissiste ngeen baal ma Sénégal dafa bëri dof dambuj sax de woon na day dugal candidature am bu amee caution waaye bañ ko fëggee juróom-ñaari bal ci la noppi dambuj sax dafa bugg a nekk président gisna bopam ko président Cheikh Bara doli gisna bopam ko président Mamadou Ibra gisna bopam ko président pap jibril Fall mi ngeen di xet mi ngi def ci bopam ne dina nek président Sénégal mo beuri ay dof ñaari nit ñoo mëna nek président Sénégal ma lañ ko wax tay ñaari nit Macky Sall Sonko jeexna ñi ci dess ñep kenn mérité wu ci nek président ñaari nit Macky Sall sax limu nek président motax mais budul Macky budul Sonko xam nga gars lan lañu wara def sen bopp. budul Sonko Macky lay doon kon gëm leen yàlla ngeen jéem a ut poste premier ministre wala président l' assemblée nationale wala ministre de l' intérieur jéem leen ngeen xëccoo loolu Idrissa Seck sax am na nu muy demee tey mu ñëw bokk ci gouvernement Sonko parce que bàyyi na Macky Sall il faut être pragmatique Sonko nee na moom bu la xasee baal baal na la du fat du fàttali ko li nga waxul démb Sonko ko wax mais Sénégal moo bëri dof moo tax nag Macky Sall di jaar seen kaw. li tax mané ne mën na fi tok ba 2022 parce que da leen di diviser bo gisee mu jàpp Diomaye négocier le bëgg dafa bëgg Sonko ne légui di nga bok waye bayil di nga bok dindel lamu El Malick di nga bok bayil nit dof di nga euh, euh, euh, Karim Cheikh Sonko nak mom dafa ne Macky parce que Macky bu l'élection, ci élection barke Rasul la boole leen dof dof loo ba Macky Sall bokk gis nga Macky Sall boo leen dof dof loo ba mu bokk yàqu man nag combat bi man dama ci commencé sonn bàyyi naa attaques yi de man li may attaque Macky Sall attaqué naa ko te dofuma ba naan damay dugg Sénégal du ma fa teg sama tànk tànk Macky Sall mi ngi Sénégal du ma fa teg sama tànk di sarxe sama bopp ñu may yóbbu ci paquetage ay waay Sénégal yéen a soxor Sénégal yi yéen a iñaan ngeen am seen i mbokk lu mat 3000 prisonniers ñu nekk ci condition yu métti gis ngeen tàngaay bi am rëbës 200 personnes fu ñu nekk wala même bu dee 50 wala 100 personnes am na ci chambre yoo xam ne ay 50 mais dégg naa ci am na ci benn chambre boo xam ne. waaw ma déplacé parce que gars am na lu ñuy def am na ci benn chambre boo xam ne il y a 200 personnes gars yi. am ben chambre bo xamné 200 personnes imagine leen ñi am ay taab ñi am ay góom té lo fébar fébar paracétamol lañ lay